قلبي له في هتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دهبا في الجنوس بلا حلم ولا حمل والنفس خرار ما زال للخير يده ويكسبه لو ëpp te gën a ràññeeku ci liggéeyub Cheikh Ahmadou Bamba bu jollee ba am dayoo bu rëy te yaatu bile ndono li rekk lañu taw ba sa laalul suuf te amaana day gën a jëm ca kanam li ko waral moo di njaboot gi fi Seexul Xadim bàyyi di ay jàmbaar yu donne njàmbaar ci jàmbaar jii di jëmm ji jàkkaarloo woon ak ay noonam tëral leen fi suuf te xat damul bi ñu noppee gis ci saayir ku tedd ki rekk la jaayante bu bees tàq sosu ci mboolem njaboot gi ci gannaaw cheikh al Karim monte at ya bariwul woon naam waaye fit wa rëyoon na lool cheikh mahamadou mustapha radiallahu anhu moo njëkk nekk xalifa cheikh ahmad bam di ki nga xam ne mooy taaw sëriñ tuba ci góor e, mi ngi gane àdduna ci guddig ajuma di fukki fan ak benn ci weeru xarit dëppoog <coughs> cent 1306 ci gàddaay gi maanaam atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn gannaaw <coughs> ci yonent bi ci gàddaay gi dëppoo 1888 ci at moomu ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha gane si àdduna ci dëkk bi ñuy wax Darou Salaam ñu yóbbu ko ci sëñ Daam Abdourahmane Lo mi nga xam ne moo daan jàngal mboolem doomi Cheikhul Khadim yëpp foofu la jànge ba mokkal alxuraan bam fa bayiko ko dem ci mam Thierno ibrahim mi nga xamne mo do non rek ci serigne bi euh di ki nga xamne itam mo susunul ci mom rek waye mo do non jangale kat bi nga xamne ne la won jo xamne euh bari na fi mag ñu xam fi ci bir yoonu mourid moom mam Thierno ibrahim mo leen jangal bindal na serigne Touba ñeen fukki kamil ak ñaar loolu liggey bu rëy la. waaye kaamil bi mu ko mujj bindal nga xam ne bi ko sëriñ bi jotee kaamil bu rafet rafet lool ci mbind mi ci e, wàllu gone rek biñ ko ci seetee ba kaamil bi dañ ko tuddee woon Kamal kaamil moo indi turu Cheikh Mouhamadou Moustapha Kamal e, mu dugg nag ci yoonu tarbiya tarbiya ruuxiya maanaam jàng nga ba noppi waaye nag dañ laa war a tàggat dañ laa war a tarbiya Euh, tarqiya la yéegal sa itte nga jëm ci yàlla euh, loolu it la nañ ko daan defee taalib yi rek la ko sëñ bi daan defee ay doomam sëñ Modou Moustapha sëñ bi moo ko digal mu ñëw Touba moo ko digal mu ñëw sanc si Touba defar def defal ko defal ko fi kër moom Cheikh Mouhamadou Fadel ci diggante boobu ci la sànc dëkk yi ngeen di dégg mu def yëpp sànc na dëkk yu bare bare bare bare bi mu nekkee xalifa cheikhul xadim radiallahu anhu ba Serigne Touba lii ju bàyyi ko fi 1927 mu nekk xalifa Serigne bi loolu di yan bu diis yan bu metti yan bu doy waar mu yanu ko ولم يجه من سوي الإفلاخ والبلخاء بسجء وسهر مما آذى مسار li jëkk ci ab liggéeyam moo di taxawu njabootuk Cheikhul Xadim ci yar leen jàngal leen taxawu leen bali sëriñ bi bëggoon ci ñoom lépp antu mooy sëriñ bi bi muy dem dafa bàyyi ay tu tànk ci saayir dama yàlla baal ay ay ndaw yoo xam ne ay njabootam lañ te bi mu fiy jógee boobu mataguñu dal wala mataguñu jàng mataguñu yar mu bàyyi leen sëriñ Moustapha mu def mu def lu mën pour ñooñee fi sëñ bi bàyyi mu def ci ñoom lu mel ni ñettee woon sëñ bi mu leen di jàngal ak jàngal mu leen jàngal ñu bari ci njabootu sëñ bi bi mu fiy jógee ay ndaw lañ waaye sëñ Mounou Moussa jël leen fexe ba jàngal leen la ñëpp jàng yar leen nañ yare ñëpp ba koo ci gis doog koy jaawale ku ku ku fekke woon sëñ bi day mel ni sëñ bi moo leen yaroon. raamal wara nay la fadlil muslimin allahu والفضل هند li gën a fees nag ci liggéeyub sëriñ Mouhamadou Moustapha moo di raay bi mu andi Touba ak tàmbali liggéeyub jumaa ji li ko sëriñ Touba digaloon. sëriñ bi naalam bi mu fi bàyyi muy projet bu mag bi mu fi bàyyi mooy liggéeyal ko jumaayam ji muy Touba mu nekkit lu jafe ndax booba Touba sori na. amul tali goudron amul saxaar amul ndox amul benn infrastructure boo xam ne mi ngi biir Touba dara nekk fi am àll rek nga war fee tabax jumaa ju toll noonu. li nga xamante ne nii na nag moom njaboot bi tubaab yi teg leen ay conditions yoo xamante ne nii na jafe lool ñu jéggi ngir mën a amalu jumaa ji ndax. condition yi ñu ko tégalon moy juma ji nga bëgg ci dimension bi nga ko bëgg matériel bi koy def saret mënu ko yanu auto atunu kon faaw nga wut yoonu saxar té booba tawab yi yooni saxar yi nga xamanteni ni waron nañ ko installer ci réew mi installer nañ ko ba pare té Touba amuñu fi intérêt ngir teural fi yoonu saxar bi nga xamanteni ni liggéeyu ray bi pare na nak Cheikh Mouhamadou Moussa jublu ci fi muy def jumaa ji ginnaaw fi ñu ko tàmbali woon ci jamonoy sëriñ bi boobu sëriñ bi ñibbu seegut sëriñ bi bi mu ñibbu see ci biir këram lañ ko denc moo tax sëriñ Moussa yëkkati kër gi indi jumaa ji wufal ko sëriñ bi. loolu lépp liggéeyu sëriñ Modou Moussa waaye damay wax ne liggéeyu sëriñ Modou Moussa bi ci ëpp solo gën ci rëy mooy indi gi mu indi sëriñ Touba fii ci Touba. طرا وقبل الذي اهل الكفار وسحوا بيمو نابي غيس ماغام دي رك لا شيخ محمد الفاديل مباكي يانو يانبي ام يتجو ري كيم نمو جاي وون جوريلم سيرن توبا جندكو اك طالبي لبم نك ميغي لالو سي طالبي لي مو ام لب سي طالبي ليغا خامتني ني لا سيرن توبا دون دفي تربيه الروحيه نيب moom itam noonu la ko sëñ Tuubaa defee noonu la ko tarbiya ca gànnaar moom it bindal na ko kaamil yu bari Cheikh Mamadou Fadil it lim njëkk a def mooy jaayante ak sëñ Tuubaa waaw jaay ko nag ak njuréelam bi atu bunu watiya bil irada lakum li kay oxsa bi xarqil aada man day li gëna neex ci aduna moy señ touba sa baye dara gënu ko neex dara gënu ko reey waye limi reey limi neex lepp man jayna la ko yow señ touba sahal turabbi ya bil muqtal summa bihim an la yuwajani bil makr makar sahal turabbi ya bil muqtal summa bihim dogu am ci barkep señ touba lo xamne lu mu ne mu am rek mu daldi am moo waral sëriñ Fallou def dem gépp ci jumaa ji àgg. ba keroog ba mu déggee li ak léegi ñimeetu la dëkk ci ab tabax baraak néew ndax jàpp na ni benn tabax rek la am léegi bu mu war def muy jumaa ji. bi sëñ Modou Moustapha demee moom it bi mu dikkee lim njëkk a ittiwoo ci àdduna mooy eggali jumaa ji. soorool yi yëpp yooyu Cheikh Mouhamadul Fadel moo ko liggéey. Lamp Fall bi moo ko ci dolli bokk woon a doon ci plan bi loolu mooy doon liggéeyu jumaa ji ci ak tënk loola rek mooy taxawaay yi nga xamante ni nii Cheikh Mouhamadou sa amoon na ci ginnaawam nag Cheikh Mouhamadou Fadel daal di taxaw rek taxawaay bu mat sëkk ba julli ko ci 1963. noonu rek. la sëriñ fàllu jiitee ubbiteg jumaa ji muy tontu li gën a ràññeeku ci ne sëriñ Touba liggéeyal suñu borom rekk moo ko ñoroon doon xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu tegoo ay nattu ba suñu borom faye ko ndam lu réy lii te yaatu te daj àdduna gépp mu jiite ko nekk ilimaan nekk alxalifa al nga xam ne moo njëkk a julli ci jumaa ji julli ajuma jiite ko nekk imaamu Tuuba moom Cheikh Amadou Fall yëpp état bépp daje fi bi jumaa ji bi mu koy tabax lam ca boole mooy lu ñu bari xamul mooy ab jàngukaay la ca ci biir jumaay Tuuba ji ab jàngukaay la sëriñ bi tabaxaale ci biir bi jumaa ji àggee ñu sanc ko dañoo sanc ji julli jumaa sanc daara ji di jàngale dëkk yu jeex yoo xam ne ni ma ko waxee woon sanc na ko ci biir réew te damay wax ne am réew kuy sanc ay dëkk yaa koy développé ñoom sanc woon ay dëkk rek pour mu nekk ay dëkk nii déedéet dëkk yoo xam ne dañ fay liggéey dëkk yoo xam ne ay tool lañ ko fay def di fa yar nit ñi di leen fa jàngal di fa liggéey alal ju nga xamante ne day jëriñ économie réew mi ci jëm ba قال المكرم لا تصل من جار فسار يدابس إذنينه نوما bu jàmbaar wuutoo jàmbaar ci ab xare la muy nàmpe ca kamu wuutu moo di fu ndam li mën a àgg rek mu àggale ko fa taxawaay boobu rek la Cheikh Abdoul Ahad amoon pas-pasub la Sëriñ tubaa waxoon sangam ba lahoo dëxëra nii yaati wahil mii wa xidmati wa ruuhi wa jusmaani wa kulli bi laa sukli mu di jox Sëriñ tubaa yéeneem xam-xamam liggéeyam yëngoom ak dalam ak ruwam ak jëmmam ci lu dul xàjjatle Cheikh Abdoul Ahad ak nekkam gépp mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Fall moom it di nit koo xam ne taxawaayam histoire dootu ko fàtte mukk mu ngi gane àdduna ci ñaar fukki fan ñett ci sawaal Cheikh Abdoul Ahad nag bi mu gënee adduna rek lañ xam ki ki muy doone ndax wax ci sëñ Tuubaa wax ci moom moom bi mu gënee adduna rek kàddu yi Cheikh Ahmadou Bamba ci moom rek ca la ñi xam ñëpp xamoon kii fa mu jëm ëllëg kàddu yi mu wax ci moom ak tur yu mu ko tuddee ndax ba mu feeñee sëñ Cheikhul Khadim dafa bëgg lool ñi ko ko wax ak ñi ko fekk sax ñëpp daf leen a bégal daal wax ne kii ñëw tey dama am ci moom yaakaar lool waaw kii moom moom dama am ci moom yaakaar lool tuddee ko Abdul Ahad jaamub yàlla ki nga xam ne moom kenn képp la moom kon tur bi ak waxi sëñ Tuubaa jooju képp junj na li nga xam ne mooy ëllëgam ndax sëñ Tuubaa moom turi doomam ak ay waxam rek mooy feeñal lu bare bari luy xew ëllëg Bimu dale dalee wate war a dalee comme niko domi soxna yëpp wara a defee sëñ bi jébbal ko sëñ am sutu jaxate sëñ am sutu jaxate jox ko ku wax sëñ asan jaxate mu jangal ko alxuraan ba man alxuraan lool ba fofu la jàngi alxuraan li magam yu bax yi def yëpp mu def ci ay dëkk momi tam dëkk yu bëree bëri yoo xam ne jàng ak jàngale ak liggéey rek moo taxoon mu sanc minallahi la tabdilu kubbaaru hasamnatayhi is annu qad utahi jaarun jëfi sëriñ Abdou Lahad ci Touba nag naam yokkum jumaa ji ci la bokk naam daaray kaamil ci la bokk ak yeneen ak yeneen waaye li ko taaral dëgg-dëgg moo di liggéey bi mu liggéey ci yaraat taalibe yi ak defaraat jikko yi li nga xam ne nag liggéey na ko bi nga xam ne nekk na xalif Cheikh Ahmadou Bamba yanu yan bi nag loolu moom bu ñu fi nekkee di ko wax mën nañ fi nekk da nga ay ay bis di ko nett li tudd sotti sëriñ Abdou bi mu ñëwee moom it gis nga ko moo def loo xam ne moom ci ci ci moom la njëkkee mooy xalif général bu ñëw déclaré na damay sos université ab université baatu université ci boppam la jëfandikoo ab université boo xam ne fu nit sàkkoo xam-xam ci adduna bi da nga ñëw sàkkoo ko fi ci Touba ndax loolu mébétum Serigne Touba la woon Serigne Touba ñaanoon na yàlla defal ko jàngukaay boo xam ne fu ne nit dafay jógee dikk di sàng sàkku si xam-xam bil Mustafa lii banal Qudus madrasatan biha yazulul asawul wal jahl wal kabar Serigne Touba ñaanoon na lool Serigne Blaat bi mu ñëwee nag moom da doon topp rek tracé Serigne Touba lu mu ñaan rek mu fas yéen amal amal ko daal di fa fa loolu tabax université bii ñuy wax université Baye Laat nga xam ne moo moo fi nekk ba léegi université boobu mu daal koy tabax def ca la ca war lépp loo xam ne ku fa dem ba gis na mel ca jamono yooya depuis ñeen fukki at ñeen fukki at ak juróom wala juróom fukki at ñu ne la lii kat sëñ Abdoulaye moo ko defoon ci xam-xam moom dafa moderniser waat yoonu murid sëñ Abdoulaye lépp lu amutoon Touba te war fee am rek fexe na ba amal la ko yar gim yaraat nit ñi ba nit ñi amaat jom ba nit ñi amaat fulla nekkat ay nit mu fexe ba génn ci dëkk bi lépp loo xam ne dafa naqari woon yàlla naqari yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam naqari sëñ Tuubaa ba kenn dootu ko fi def bu fekkoon ne xalifaam gépp loolu képp la ci liggéey doy na wa inama xaraja almuxtaari wajahahum bi xabdatin min turaabin wal idhaaru lépp lu soxaloon diine sëriñ Abdou Khadre Mbacke defoon na ko gën gi yitteem ngir sàmmal Cheikhul Khadim yoonam wii di yoonu murit di lislaam di ñu ko yare tàggat ko ci. sëriñ Abdou Khadre nag kenn la ci ñi nga xam ne sunu boroom dogal na ñu wuutu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ci kaw suuf ci mag ci njaboot gi ñi nga xam ne ñoo jaar ci xilaafa gi. mooy ki ci ki ko ñeenteel ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khadir mooy ki ci tege nga xam ne kon mooy ñeenteelu xalif bu Cheikhul Khadim radiallahu anhu moom nag xam naa ci tënk mi ngi fi ñëwoon 1914 90 ci la ñu dëddu 90 doonoon jëmm joo xam ne nag buñ doon tënk kàddu yi nga xam ne des na ko seere ci moom te muy kàddu yoo xam ne àdduna bépp mën na ko maase seere mooy ginnaaw bi mu doonee doomi Cheikhul Xadim radiallahu anhu teewul dafa jaar ci jaaruwaay yi nga xam ne mbooleem rijaalu diin yi fa lañ leen di jaarale ngir ñu mën a am أهلية تي مانا سايتو ديني بسونو بروم دوغال ناك مو نيكون بروم خام خام بو ماك واي دونو نيت كوي جيفه لامو خام نيكون عالم نيكون عابد جام كتب يالا لا وون بو خامني نيبكو مانا سيري لول بيهدي موفيا بلا انتفاع الى ما فيه اخيار وهن اكون على الاهداء متليا حتى لينخرط أسرار وأخيار naam sëriñ Abdou Khader Mbacke yàggul ci jal bi waaye fa mu féete woon magam yi ci taxawu lépp lu aju ci diine ak sàmm sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam siraatal mustaqim gu wér sëriñ Abdou Khader nag ci jamonoom nikaax bu war a am moo daan méngoo taxawe ko ngir xeemeem guñ xeemeem jëfam ak yaakaar guñ ca yaakaar barke la cay toppit muy tanaakahu tanaasalu tanaasul saa bu amee fu doom juddoo rek moom moo méngoo woon joxe tur maana tudd doom yi loolu dafa bokkoon ci muhimmam bi nga xam ne dañ ko ko féetale woon waaye nag ñaar yooyu ni muy amee rek la ca baaxoo topp képp ku dund kullu nafsin dhaaiqatul mawt saa bu faatu amee it dañ ko daan wóolu ci mu taxawee way faatu yi ngir yaakaar ci ñoom bu leen taxawoo njëggalug yàlla ak yërmandeem loolu nag neexoon ko lool mu taxawoon ci taxawaay bu am solo ànd ak nag diggam ak doomu aadama yi moom dafa taxawoon temm ci menn mbir moo xam ne ca la nekk ci te ca leen ca la leen doon soññi te al istiqama mooy tege ci mustaqim nga xam ne doo doo yéesal noonu ko waajuram wa cheikhul xadim radiallahu anhu jàngalee wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita sëriñ abdul xaadir cooci la tënk woon te it kàdd gu mas a bàyyikoo ci moom rek jëm ci doomu aadama yi tey kàddu gu koo xam ne lislaam ci la bàyyikoo baat boobu moom da fees dell te mooy ñu tënku rek ci listiqaama bu indut baatub listiqaama bi it kàddu ya muy joxewaat maanaama buñ ko dajalee day delluwaat ci istiqaama buñ xoolee maanaama rek ci istiqaama lay delloowaat nit ñi kooku moom mënees naa tënk loolu ci ay jëfam teewul nag nit yàlla yi wala li fi sëriñ bi bàyyi woon rek muy ndonoom nekkoon na ca loola te mooy sañc ay barab di fa yare ak di fa jàngale kama bi ñu noppee gis sëriñ Abdou Khadr mbakke la sëriñ Cheikh Salihu Mbacke yor caabi buntu kër sëriñ Touba bokkul na ci ay kàddoom yu fës li mu ne woon lu dul lislaam awma ci ab yàq awma ci ab defar mu doonoon ab yarkat jàngalekat baykat bu ràññeeku woon lool. sëriñ Salihu nag yaakaar naa tur wi rek boo ko xoolee wane na mission bi ko sëriñ bi jox as-saalih wal muslih serigne touba dafa dan ñaan yàlla ci njabotam am ko xamé ne wala njabot gep sax don ay muslihun wala tusidu fil ardi islahiha wa wad'uuhu khawfan wa tamaan inna rahmatallahi qariibun minal muhsinin kon islah moy wala defar suuf defar bakkan yi defar nit ñi defar xol yi lolu moy mission yonenti moy mission wali yi dale ko ci Seydina ibrahim ba Seydina Muhammad ali sallallahu wa wasallam lolu rek lañ doon taxawé nek nek serigne bi ba serigne bi. E, jox ko nijaayam sëriñ Amsatu mu jàgge ci moom alxuraan ba mu koy joxit lu wax na e, joxuma la ko ngir day aaday wolof nga xam ne dañuy jël nit day jël e, doomam jox ko nijaayam waaye daa am lu ma def ci yow te xam ne man nga koo def ci ñoom ma bëgg nga def ko ci ñoom kon foofu la ko sëriñ bi jaarale mu jàngee fa alxuraan nekk fa ak sëriñ Abdul Ahad ak ñeneen ci njaboot ak sëriñ Tuubaa gi sëriñ Chouaïbou sëriñ Abdou Samad ci diggante soosi la mu nekk ci daara ja bi daana ko nettali ñi mu daan yar dongay tarbiya ci nañ ko daan formé mu ñu koy nettali ngir bëgg ñu roy ko ci ak jàng ci moom mën a muñ ak nangu coona te xam ne képp ku bëgg defal yàlla lu rëy da ngaa war a am foo jaar fuñ la war a jaarale ak noo war a noo nuñ la war a préparé noo war a muñee loolu daana ko wax lu bëree bëri euh, ci noonu euh, bi am njàngam àggee it ci la ak serigne bi jóge fi ci la nek ci eh, loxoy serigne Modou Moustapha serigne Modou Moustapha yobbu ko ci daara ji ci wetu Touba mosul ma ab muy tindo di wut borom xam-xam yu mag yobbu fa mu war fa jange mu nek fofa jang fa asdir gannaaw ba la jógee lahas dem bakol ci tel bakol ku ne xam ne ne eh, milieu xam-xam la ci l'islam bu siwon ci province yi eppone xam-xam ci jamono ceddo ji la mook njàmbur foofu jànge na fa ca daara yi xaalima jaxate muy sëñ Mor Saasum jaxate eh, di kenn ci bokk yi mu ko jàngal doom doomi xaali maam xaali jàng na yi ci yeneen daara yu mag yu fa nekk ndax nee na daana xëy suba fépp fu eh, daara nekk foofu rek dana fa jaar jàng bu xëyee balaa ñibbisiwaat jant dana so te lépp rek sàkku xam-xam la loolu lépp nag dafa mel ne da doon préparé mission bi ko sëñ Tuubaa defal bi mu war a taxawalee sëñ Tuubaa ci liggéeyal ko ci nit ñi te loolu day laaj euh, ni ko Sëriñ Tuubaa waxee min a tabaxuru fi ilmi sharihati ma ilmi alxaqiqati min xabli riyadat nee na nit ki bala ngaa tàmbalee tarbiya nit ñi eh, da ngaa war a mat ci xam-xamu sharia waaye man ci xam-xamu xaqiqa moo tax sëñ bi yooyu yëpp ma ci wax di ko jaarale ay jaar-jaar la woon ba pour man mat li ko sëñ bi liggéeyloo ci defar doomu aadama wa ajilan wa ajila خذ لذوي الإسلام ما يزيد loolu lépp nag daa am laltaay lu dëgër ci ak njalbeenug Serigne Saliou te loolu bi mu agsee rekk da ko fësal muy ndigalal woote ngir ñu jox ko ndaw ñi mu def ci ñoom la Serigne tubaab defoon ci mag ñi liggéeyub Serigne Saliou ràññee lool ci dëkk bi ci jumaa ji ak yoonu murit gépp Xelkom nekkutoon barab bu ñuy bàyyee rek bàyyi taxutoon mu mu mu mu sos ko waaye yar ak jàng ak jàngale moo taxoon mu sos ko am na benn mbokk bu yox ne sëñ Saalu nekkutoon ab ab baykat waaye baykat bu mag waaye jàng yarkat bu mag la woon nekkutoon baykat bu mag de mbay mi benn moyen la woon rek ci ci yar bi waaye la ko taxoon a jig dëgg mooy jàng ak jàngale ba daara jooju di Xelkom ak barab yi mu am yëpp ay kangam jugé nañ fa yo xamné musu ñu génn daara ja té lepp lu ñuy jang jang nañ ko ba di woyaka talifa ka def ay kiman yu reere reere ci ca daara jo kep képp lañ ko lañ ko jangé 1934 ci la tambalé liggéey bobu euh boy xol mu tambalé di sos ay daara di tarbiyé nit ñi di liggéey di ñaq di joxé wut espace bo xamé né tamit lim bëgg ci dafa doom adam ak wéet ak ñoom ak beroog ñom di defar seen ruu di leen éduquer di leen defar foofu la ko mën a am. bari na lum jëmmal ci dëkk bi ak bitib dëkk bi bokk na ci yooyu jumay Cheikhul Xadim ji indi na ci ay yeesal yu bari yu am solo yu ñëpp teg bët waaye naka noonu it biir dëkk bi ci boppam li mu soxla ci ndox ak li mu soxla ci courant bari na lum ci amal kër sëriñ Touba yi nga xam ne. dadul doon lu mën a ñàkk ci biir dëkk bi ndax euh, naa leg mébét yi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaqa am <clears throat> yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli ko ak wér bu sottee ci la ñuy xam solos kër Serigne Touba yooyu nga xam ne moom la Serigne Saalihu doon amal ci xiblay dëkk bi tam war a toll ci ñaar fukki kër ak juróom-ñaar tolloo xarafi Touba alaysa yunjudani bil aghfa nafayda kulla man rab لما يسود من شكر يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير bi nga xamee ni doomi Serigne Touba nekkatul ci kaw suuf jaaxle ak tiitaange amoon na waaye jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké toog ci xilaafa gi doon sët bi jëkk bi taawu ndonoon Serigne Touba li tax na xel yi dellu si waat jaar na fi képp ku li njabootuk Serigne Touba jaar ci jàng ak tarbiya moom Serigne Mouhamadou Lamine Bara nag mi ngi gane jamono Ndindi 1920 1921 diggante boobu daal soriwu ko diggante boobu la wax ne ci la feeñ diiru bi mu feeñee nag ba biñ ko noppee gis ci tarbiya la nekk ndax ci ndigal la doon dox ba bi mu gis ku ko jox ndigal sunu borom dogal mu wuutu Cheikhul Khadim ci kaw jal bi waaye mu jëlaat lépp jox ko rakk yi ñu mbokkal bokkal Serigne Touba di leen diglu am na it moom it ay ay ay ay ay jëf yu mu jëf ci wàllu ruux ndax amoon na ay barab yoo xam ne daara yoo xam ne dañ fa daan jàng ak di fa yare ku ku daan topp ñam war a topp la ndax wax na ci euh, làmmiñu boppam ñu bari fekke ko mu ne yóbbu na Serigne Saliou ba tàyyi ci auto di dawalal di ci wax yi ya, sax yu xorom yu iya, yeme seigne Abdou Khadir mom ak demam Makka ku ne ragne la ci Abdou Abdou Khadir seereel na mbolo mu bari sa buñ tuddé tuddee alaji bar mu ne alaji bar de jambar la ndax taxaw bu ragne bu ko don taxaw ba ba ak it bari nañu xam alaji bar it ci jumaaji kon ko rawatina bi fi suñu Abdou Khadir Mbàkke nekkee saa bu suñu Abdou Khadir di ñëw daal day fekk mu taxaw di ko nekk ba ci sëñ bu Mbàkke def na ko ab diggante kon ku doon liggéey ci liggéey yàlla la ci jaami yàlla yi rawatina wàllu social defe ne ñëpp moo leen war a taxaw kenn ku ci nekk lu mu ñàkk moom moo ko ko war a defal doon na doxe tànk yooyu لي وجال lu ràññeeku ci dunduk cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fadilu moo di fonk lool yoonu makkatal mukarrama te firndewu na. diggante boobu baagante na ko lim boo xam ne néewaa nañu gis nag koo ko baagante. loolu maa ngi ko jëlee ci làmmiñu doomam ji ñuy wax sëriñ Seex Ndindi yàlla na ko sunu borom sàmm te dëgëral ko di jàmbaar lool di borom xam-xam di nit ku baax moo ma nettali loolu yi ne sëriñ Fallilou moo ko ko dénkoon. Euh, boo gisee it jumaa yi Cheikhul Xadim ji ni mu ko fanke woon bokk na ci ndénkaanam yooyu Alhaji Mouhamed Lamine Baara euh, moom jumaay Cheikhul Xadim ji rawatina bisub ajjuma <coughs> lum tàng tàng wala lum sedd sedd wala muy taw. du tee rek moom da koy teewe bokk na ca kàddu yam waxoon fee madinatul a nekk fee yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam di madinatul munawwara dafa am pas-pasub tuubaa mel ne barab boobee am na sax num ràbbe woon waxiin wa waaye maanaa mi rek mooy taar ba madina am moom daa am pas-pasub taar boobu tuubaa am ko am na lu ci jëmmal ndax bim toogee ci xilaafa gi lim réalisé ci jumaa ji indiwaat na ay yeesal ak ay taar euh, ak ay mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla àgg na ci képp koo xam ne xool nga jumaay Touba xool madinatul munawwara da danga xam ne ki waxoon ne dafa bëgg Touba mel ne Madina dox na ci ay jéego. bokk na ci yi nga xam ne sottee na ci ay loxoom comité d'organisation bi yore màggalu Touba gi moom moo gis ne. Sëñ Tuubaa naka jekk euh, dafa yaataloon mbir mi ndax moom ci loxol boppam moo ko liggéey moom boroom Tuubaa waaye teewul nag mu sëdd ci ay nit ay cër yoo xam ne mën nañoo dem sax ba jàpp ne ñoom mënuñoo ñàkk ci mbir mi te fekk ñaag ba leen sëñ bi ñaag rek moo moo duun ñaag boobee sëñ bi doon ñaagaate nag moom bi mu agsee euh, ngir firndeel ne sëñ bi luñ bokk la lu ne ku ne da cee war a nekk moo waraloon xalaatu comité d'organisation Màggalu Touba gi ba léegi si mi ngi dox ba agsi ci loxoy sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na yàgg ci loxoom xaalibul kullu minhu min sadidin zalibun lil muslimina wa kulli muslima ñaareelu sëtub Cheikhul Khadim bu toog ci xilaafa gi moo di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ak njalbeenam doon lu dëppook li mu nàmpe ci ay waajuram muy nonol Cheikhul Khadim boo koy qualifié da ngay wax moom c'est une force tranquille ku daloon la woon ku xam boppam ku équilibré la woon ku xam li mu yoroon li mu doonoon ku xam tamit li mu doon lan la Sey Sidi Mokhtar nag ci jambar l'islam yi la bok ñi liggéeyal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam liggéey bu leer ci biir tolu mamam sunu kilifa gu tedd gog nga xamanteni jaar gi mu fi jaar mel ni téméri at la fi def ngir réussir bo xamanteni réussir na ko ci mission bi nga xamni mom la yoralon mamam Cheikhul Khadim diko doxal doomu Cheikh Mahamadul Amin Baara la ak soxna matilay nekkon juróom ñaareelu doomu Cheikh Mahamadul Amin Baara waaye nekk juróom-ñaareelu xalif cheikhul xadim e, moom Cheikh Sidi Maxtar radiallahu taala anhu mi ngi gane àddina fukki fan ak benn ci mois weeru juillet maanaam la 11 juillet 1925 ci Mbàkke Kajoor ci diggante Cheikh Mouhamadul Amin ak soxna Mati Lay nga xam ne soxna Marema Sàll moo ko jur Cheikh Mouhamadul Baara tudde ko xaritam xaritam ba ko jige woon lool maam Cheikh Awa di doomi boroom daaru turam nag Cheikh Sidi Maxtaar Mbàkke la waaye ñu gën koo xamee ci Cheikh Awa Balla ndax bu jëkkoon cheikh yi dañoo bare woon ci kër sëriñ bi kenn ku nekk dañ lay tàggantale ci sa waajur jigéen waaye Cheikh Sidi Maxtaar la tudd ñu koy la ci maam Cheikh Awa Balla bi mu tolloo ci at Cheikh Mouhamadou Bara dem Mbàkke Kajoor wax soxna ma Sàll maamam ni ko àndal ak soxna Mati Lay nga indil ma Cheikh Sidi Maxtaar fii ci Jurbel ci njaarim mu ànd ak moom yóbbu ko njaarim cheikh Mouhine Baar daal di koy jël yóbbul ko cheikhul xaddim cheikhul xaddim ñaanal ko gis ko loolu 1926 la woon ci njaarim eh, bi mu ko ñaanalee mi ngi tifli ñaan gi ci lopp day jorom moo tax si Sidi Maxtaar daan wax ni bépp soxla boo xam ni dugg na sama nopp ndeyjoor boobu dina saafarawu ndax ñaanu cheikhul xaddim googu nee na sax bi mu ñibbisee waajuram nettali na ko ni nopp bi am na juróom benn weer yoo xam ne da doon xelli ndax ñaanu sëriñ bi bi matee jàng itam waajuram moo ko dalal jàng euh, ngir barkeeral ko àlluwaam bi mu ko dalalee jàng ba noppi dal di ko jox turandoom maam Cheikh Awa Balla ci Touba Darul Manaan mu am fa ab diir waaye Cheikh moo leen baara gis cofeel ak mbëggeel gi nga xam ni maam Cheikh Awa Balla am na ko ci moom moo xam ni bu fa nekkee <clears throat> mën na koo gàllankoor ci am njàngam mu àbb ko ko ni ko dama bëgg nga abal ma ko ma jàngale ko waaye dinaa ko delloosi maam Cheikh Awa Balla ànd ci ak moom mu jël ko andi ko fii ci benn taalibeem ku ñuy wax sëriñ Ñaan Diop fii ci Touba Kër Serigne Ñaan nga xam ne moo nekkoon jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu jàngal ko lenn ci alxuraanam mu yóbbuwaat ko balal ci sëñ Modou Amar moom mu jàngal ko ba alxuraanam àgg. mu soog ko jël yóbbu ko njaareem ngir mu jàngi xam-xam yi nga xam ni moom la doomu soxna baaxoo jàng fii ci senegal bi mu demee njaareem jëkk naa jaar ci sëñ Mouhamadou Dem jàng fi ay lëf ci ay téere soog a àgg ci sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ni bari na ci njabootu sëriñ bi ñu mu jàngal ba lépp loo xam ni warees na koo xam ci wàllu diine mu xam ko soog a ñibbisiwaat ci Cheikh Mouline Bara mu joxaat ko turandoom mu wéy nekk ak maam Cheikh Awa Balla ba cheikh mahul ayn baar génn àddina maam cheikh wala ànd ak moom di ko jàngal àddina di ko tarbiya di ko yar e cheikh mahul ayn baare baare itam mii waajuram am na lu mu waxoon maam cheikh awa ci moom am na lu mu ko dénkoon ci moom waaye lépp mu matale ko ba mata samp kër 1947 maam cheikh awa balla sancal ko kër sampal ko kër ba taawam di cheikh mahul moustapha mii foofu la gane àddina ba mu dal di ko yebal mu sanc ab deug bu ñuy wax tambedu ci wetu Touba keur ngann tambedu keur ngann bokul mat na ñaari kilomètre waye suuf sa xat ci mom mu bayiko fa ñew lappé Touba lappé ci soñ mbokki naar yi sant Touré fofu ñu dogal ko fofu ci seen tol bi moy fofu ñu wax Touba keur ngann suñ mbokki naar yi nga xamni ño sant Touré te dëkk lappe ñoo dogal fofu Cheikh Sidi Makhtar dal fa def fa dëkkam ñu jox ko ay tol mu fay di fa tarbiya di fa nekkoon koo xam ni itam ku nangu woon kilifteef la ku nangoon a topp ay magam la علي دسني ما كريم أمي دابرات القلب ونفسي طيبت li gën a fës ci fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké tegoon tànkam moo di fexe ba lislaam ci senegaal ànd doon benn mënees naa bëgg mbir te du antu waaye nag suñu borom rusoon na ko te firnde ji ay seere yu tukkee la ci mbooleem turux yi ci réew mi di këri diine yi ci Sénégal Cheikh Moutar bi mu <coughs> Serigne Abdou Aziz Al Amin jamono Serigne Cheikh Tidiane fi euh, ko mu porte waxtaan ak sëriñ bi ci loolu sëriñ bi xamal ko ni ko dama bëgg nu ànd dox ko wax ko kilifa yëpp tamit nag noonu laay yeblee ci ñoom ngir nu ànd dox ko wax ko ndax lu kenn man ñaar ñoo ko ko dàq gi nga xam ne nag ci lañu yàlla boole ñun ñuy njabootu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ñaan yàlla mu dolli ko wéral te doolee guddal fanam yàlla boole leen jotaay ñoom ñaar mën na noo seede kumu digganteem ak sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke ni diggante bu rafet la bu ritax buñ dund bu barkeel bu benn la njaboot bi waaye sëñ Cheikh ma Tidiane mi nu gën a jige te yàlla dogal mu dénk nu kàddoom nu man cee seede loo xamante ni nii du deñ te lépp lu rafet la diggante moo xalif bii tey Cheikh ma Tidiane yi kenn ku ne da nga nekk xalifa ñu door a xaritoo wala ñu door a bokk mu ne déedéet ba ñuy xaritoo ba leen yàlla lay boolee ñu xaritoo di bokkoo di jëflante boobu amul kenn ci ñoom koo xam ne xam nga ne da nga nekk xalifa bon ku ne xam na ne loolu mooy li ma wax léegi ne kóllëre guñ doon na ci seen i maam la doon ne ko ci seen i baay euh, ñu rafetal ko lool ñoom ñaar ñëpp ci demlante ak fekklante ñun ñi nga xam ne ñoo newoon ci diggante bi di dem ak a ñëw mu di ñu yónni ñuy ñëw di ko wax mu di ñu jox ay kàddu ñuy dellu foofa xam nañ mara alaaka boobu ni mu toll woon ci dëgër ak ci rafet ak ci bëggante ak ci àndoo ngir جئتك اليوم وقبل اليوم والإجالة فترة فوق صومي جئت بذا القصير ساكنا لك بي وقبل liggéeyam ci lislaam daa méngoog la Sëriñ Tuubaa bëggoon wax ko mu di képp ku ngeen gis gémmiñam di wax baatu laa ilaaha illallah bu leen ko noonoo jëfi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke firndeel na ko fépp foo xam ne mas nañu faa dem itam digganteem ak moom waral na ëtt buñ ci dugg dafay mel ni jëmmi Cheikh Sidi Mokhtar bi moo taxaw teraanga ju ñu teral nit teral nañ ñu ko ci ëtt diine yi loola it ñoom ba ñu koy def xamoon nañu ni eh, ëttu Serigne Touba ëttu diine la ëtt yi ci des yëpp tamit ëttu diine la te ëttu diine yi ñoo bokk ndey ak baay. ndax lislaam mooy ndeyu julli ñi yëpp mooy bàyyi julli ñi yëpp sëriñ Touba moo ko waajal ndaxte lii nga xam ne lii moom la fi liggéey liggéey ko Touba te ngeen déggoon Cheikh Mamadou Bachir énuméré ko ci jumaay maamam jooju def ko tamit ci dëkk bi li nga xam ne lii moom la def ci assainissement dëkk ba def ko ci éclairage public bi nga xam ne bii moo nekk ci dëkk ba def ko tamit ci extension dëkk bi maanaam Euh, pàkk yu bees yi nga xam ni lotissé nañ ko mu wëlbatiku tamit def ko ci li nga xam ne lii réussir quelque chose boo xam ni loolu euh, c'était pas évident ñu ni tëj nañu janaase yu jëkk ya armeel yu jëkk ya ubbi yeneeni armeel mu taxaw ci taxawaay boo xam ne bii ba ñëpp nungu ni léegi baq ya googu nga xam ne ubbi nañ ko ndax jële fees na fa la ñëpp di yóbboo ñi nga xam ne ñooñu jiitu nekk na liggéey boo xam ne bii benn liggéey féetewu ko kaw bi xayri raddin salaam asallu kawnan fil qasida xaariqatan naadatil ya ayu ya qayyum salli bi salaam bi nga xamee ni njabootuk Seexul Xaddim gi doom yi nekkatuñu fi taxawaayu sët yi ràññeeku na lool waaye li ci dal xel dëgg-dëgg tey kéemaan moo di sëriñ Touba day xaadimu rasul mën na kanamam mën na ginnaawam jëf na ba fi bind na ba fi te saa su ne ñu gis ay firnde ci la sëriñ Mouhamadou Moustapha waxoon Cheikhul Khadim lim ma wax ma tekki sama bët lim ma wax te teguma ci sama bët laa gën a gëm te ku yër bayit bii ci midaadi wa aqlaam yi di nga xam ni sëriñ Touba léppam la fàgg woon dëppoo na lool ak al muhtar ak al muntaxaa ci niñu topante ci xilaaf ak cheikh ahmadou bamba xaadimu rasuul